bismillahi rahmaani rahim ñoo ànd ak Serigne ci njàngaleem mu sell mu neex mi Serigne Touba xaada la wala la nee na murit buy door a soobu mu ngi mel ni daaba joo xam ni bët daa sebbi boroomam jële ko ci xur wañu daan fore andi ko fekk da da koo bëgguta wàcc ca mbërëg moomee muy jaxasoog yam fay jaxasool bu koy andi danañu finqoo lool buum ga ndax néegu fa bàyyi xur yu naat ya waaye bu ko fenqee ba indi ko ba dugal ko ca wuddu wa ko taamoo dugal di ko fa fekke lañu ko fa war a fekke ba waxtu wam ca namu fekk na la mu ca jublu bisub dawle daa nekk ca kanam dawle mooy kursu boo xam ni daa nekk ca kanam boo xam ni su ko waccoon ca xur woowee bis boobee bu ñëwee bu ca dawee ku ne ni acam fekk na boroom moom la mu ca nam mu mooy bisub dawle boobee bu ñëwee bu ca dawee ku nekk ni fas fu ñu ko yafale siiw na loolu mooy gàttal gi walla aw alam am na ku ma sa wax Sëriñ Tuubaa xaadaloho law maxtaar loxo peñub daa yokk nangam lay jar sëriñ bi ni ko yokku njëg ako wàññi koom amul solo li am solo moo di am njëg li ngay jënd lu mu yomb yomb te amoo njëg mu jafe fi yow lu mu jafe-jafe te nga am njëg mu yomb fi yow siiw na yàlla na nuy am njëg ci barkeem wallahu alam sëriñ Masamba Kura radiallahu taala anhu bi mu faatoo sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaaluwoo dani ma ko suulal fa sanxaay sanxaay la nan ko suulal fa sanxaay googee ko jëfam siiw na sëriñ Tuubaa xaadalawoo law mas naa gonte daarul mannaan jaar dëkk bu rëy dëkk bu rëy turu ab dëkk la wàccul daa woo ñaari mag ña fa nekk ni leen fuy bayti ñu ni ko ma sëriñ bi ni wala saa boroom wax ni nanu fa jullee timis ba mu noppee ba defi lawraat ni ana fuy ngaabu ñu ni ko mi ngi ci bët saalum sëriñ bi ni sori na fi ñu ni ko mat na ñaari toori kilifa sëriñ bi ni saa mi may digal foofa la wax nanu fa julee gee ba mu yeggee ba julli ba defi lawraat bind na fa wistan daaji ci garab gu mu doon binde nee nañu garab googe ay xobam diirub la mu fa nekk da daan àndaale wistani daaji bu ci sax ba mu bindee ba àggal wax ni suuf si ak ndox mi dañ dañu ko bëgg a topp mu ni leen maa ngi dem ba jeneen jëmmi jamono ma ñëw dëkk seeg yéen siiw na gis on ya xinnu lahoo ya innu la ñuy fàttali wallahu alam sëriñ bi xaada la wala maxtaar la nee na pàkkub yàlla la ñi fi nekk yàlla leen moom ñooñ yàlla lañu sunu boroom subhanahu wa moo ko ko sanciloo siiw na am na ñu wax ni sëriñ lu doomam radiallahu taala anhu la yabaloon mu sanc ko siiw na ba tey nee fukki jigéen ak ñaar la fa sëriñ tubaa xaadalowoo law maxtar lowoo njëkk a yabal ni leen bu ngeen demee na ngeen fa liggéey liggéeyu doomi soxna da ngeen a xamul liggéeyu doomi soxna ñu ni ko xamunu ko mbàkk sëriñ bi ni leen bu ngeen demee dee leen yara xarum tara biir xeetu xar la ba ñépp bëgg ko dee leen soob ba mu baax di ko tàpp di ko yit kilifa dee leen rëbblu lu ngeen di soob na ngeen koy rëbbal seen bopp la ngeen koy defee ñëw leen fii nu jox leen ko bu ngeen demee ba am cag delloo si ndey ji fii ndax li fi nekk kenn du ko lekk xëy na waru leen koo lekk yéen la bëgg a wax baan ma delsee la fa yabal lu mat fukki góor ak ñaar naka noonu moo tànnal boppam na mu war a toll ak këru jigéen ña fa muy féete ak këru góor ña siiw na Sëriñ Tuubaa xaadalowoo law maxtaarlowoo mas na ni day tawa ñu ni ko waawaaw mu ni ndax mu dem ca sama tool ba ca ngaabu siiw na sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaar lawoo mas naa jox sëriñ moor anta ayib ja radiallahu taala xanu suuf ni ko boo demee ba gise teew ma dee ko tàllal di ci ñaan di ma bañle ab tubaab siiw na tubaab mooy yéefar wallahu alam sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaar lawoo am na ko mu mas a wax li nga may kër këree lépp ndeke doye woo ma ludul janjub suuf ak gunóoru mberangaan siiw na da koo andi woon këram di ko wan lu mu fa tabax akub wata tabax bi mooy janju suuf oto bi mooy mberengaan bi wala alam soxna moyen nga bu radiallahu taala anu bi mu ganee adduna ba ñu ko yëgalee sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaloo dani xam ngeen ban bis la ñu ni ko am na ñu ni alxamis am ñu ni ajjuma sëriñ bi ni ma laaj ko saa borom saa mi may wax nee na ma aljuma la dem leen ne leen daara Abdurahmaan daa di lim lu mat juróom-ñaar ñu tudd Muhammad juróom-ñaar ñooñi laa santu ñu teralal ma gan googi bu moom lu ci waay def nawuma lu ci waay def siiw na Sëriñ Tuubaa xaada lahu law maxtaara lahu mas naa laaj soxna faati xujja radiallahu taala anhu xastu mii lu muy jooy mu nu ko daa bëgg ngaabu lool bu nu yàggee njaareem day wax ni nan ñibbi sëriñ bi ni ko dama defe ni dana ko war a féetale ngaabu siiw na am na ku ñu masa denc ngaabu ba ko Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaar loo yëgee ni nañ ko sulli dama leen fa dëkkuloo waaye denculoo wu ma leen fa ku amul bàkkaar yëtal leen ma ko Abdourahman loo kuy mag na dem Tuubaa ning ma fa ba ma ñëw siiw na ku amul bàkkaar xëy na muy gone wala ko sot rek wallahu alam ñu ñëw ci Serigne Touba ak i ndénkaaneem ci téeméer bi ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett am na ko Serigne Touba xaada loo laaw maxtaar wax xaadi da ngaa demul ca sama dëkk ba ma la bàyyi woon booba nga bu wax mu ne ko dama fee ñëwoon Serigne Touba xaada loo laaw maxtaar loo ni ko demal ñibbi mu fanaan njaareem guddi googa ba mu faatoo ba ñu koy wax Serigne bi mu ni maa leen ko njëkk a yëg ndax malaaka mi ñëw na fi ni ana xaadi mu ne ko ma nga ca pàkkub yàlla ba ca ngaabu mu ne ma foofa duma fa dem di jël ak ruu setuut mu ñëw ni ma damaa defe ni xaali mi ngi ci dëkk bi ma ne ko demal jël ñetti at a ngi bu ñëwee ma ne ko demal tey jii li tax mu fanaan dogal bi moo agsi siiw na Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaloo bu ñu ko masaana andil loo xam ni daa ñore ngaabu da daan wax ni fépp fu amub taal te taal ko nañu fa yóbbu dara ñu barkeel lu ci siiw na sëriñ tuuba xaadalahu allahu maxtaarloo mas naa wax sëriñ mbàkki bu sa radiallahu taala anu mu wool ko fere yi ginnaaw ak julli ba ñu ñëwee sëriñ bi ni matu ko waminkum waminkum daal di tëjwaat siiw na sëriñ mbàkke ni leen minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu laaxirati la bëgg a wax ku fi adduna andi xam nga ko ku fi alaxira andi xam nga ko wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaada loxo laaw maxtaar loxo mas naa wax boroom nit ñi tere nama may jaxasoog ñoom li des ci at mi bu at mi matee dootu leen am lu leen metti sama digg ak yéen wér na Sëriñ Tuubaa xaada la laaw maxtaar loxo nee na bàyyi fen moo gën jàng alxuraan ak xam-xam ak jëfe sàmmonte moo gën woor jamono jépp fàttali ko àllaaxira moo gën taxaw guddi gi laabiiri jullit ñi moo gën jihaat bàyyi mooy moo gën jéggalu digle lu baax moo gën bari sarax tere lu ban moo gën ñaan wér na li mu nu bëgg a xamal moo di bàyyi tere yi moo gën jëf ndigal lu sell itam moo gën lu sellul lu sax itam moo gën lu saxul wallahu alam sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaloo nee na nee xarafi tubaab lu ci waay xam bala moo dugg àjjana des na ko def ni ñuy def bal bu dugg te serut siiw na balu fital bu jamee kenn bu ñu koy génne ni ñuy def lay wax wallahu alam sëriñ Tuubaa xaadalawoo laahu maxtaar lawoo am na ñu mu waxoon bu ngeen demee waxiin wa na ngeen ko fa bàyyi ñooñu dañu doon dem France ca guerre ba wallahu alam am na koo xam ni ba ko sëriñ Tuubaa xaadalawoo laahu maxtaar lawoo di yebal ngaabu dani ko boo demee na leen daan dëkk ca ga ña nga dëkkal loo man dee leen ko dimbulee bu ñu la tooñee nanga leen jéggal te bu leen tooñ am na ko daan nga ngaabu di jële ab dundu njaareem ba mujj Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaloo ni ko teelu be nekk foofee lu ñu nar a andeeti fi man nañu ko yóbbu ca kër googee siiw na sëriñ bi moom hadiye yi bu dajaloo fi moom itam li muy def mooy jox ko ñu ko xaajawoo kan taalube bi bu gisee ku ko jige te nekk ci liggéeyub sëriñ bi mën na koo jox hadiyaam li feeg ma ngay sax ca loola wallahu alam sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaarlowoo nee na ku bëgg am noflaay da ngay def coona muy sab noflaay te jëmale ko ci yàlla subhanahu wa ku bëgg a tedd da ngay muñ teraay ba yegg ci bàmmeel ndax loo fi tëdd ci diggante bi neen la siiw na fa talabu raxati fi daaril xurur fadixatan yawmal xiyaamati yasir mel na ni néewal ay wax akuk lekk dana dimbulee bu baax ci jaamu yàlla subhanahu wa taala wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaadalahoo la maxtaaralahoo nee na biirug wut lu ciy nuru ak am ak ñàkk la siiw na adduna mooy wutukaay bi ajjana mooy yamukaay bi wallahu alam am na ko wax ni li ëpp ci julli Sëriñ Tuubaa xaada lahu law maxta lahu bu dee béral ina ansalnaahu ak li ilaafi Qurayshin lay tari bu amee dara lu yëngu ci mbiri tubaab yi dana faral di tari xul yaa ayyuhal kaafiruun ak fallaxi ak naasi siiw na Sëriñ Tuubaa xaada lahu law maxtaar loo mas naa rëdd aw rëdd wax ni ku ko jéggi dem sawara ku ñuy wax Sëriñ Daam Jaane radiyallaahu taala jéggi ko fekk sëriñ bi di tari alxuraan mu ni ko dama doon teqali dëgg ak fen sawara dànn na ma dànn naa ko nit ñi dañoo bëgg dox sama digg sama borom te duma ko nangu nañu dem kayel kër sàmm nunka foofa sax yàlla am na fa siiw na li mu mujj a wax dañuy leeral ni yàlla subhanahu wa taala mi ngi ci lépp wala lépp nekk ci yàlla subhanahu wa taala laxad jaani fi daaxilil xaskari ridda ba bayit wa jeex wallahu alam sëriñ bi xaada la xaada lahu allahu bi mu nekkee ci géej am na bis am ku ni ko dama bëgg nga suuxat dër bi sëriñ bi ni ko danga bëgg ma suuxat ko wala danga bëgg mu am ndox rek mu ni ko noo ci def ndox mi daal di balli ci ron ay tànkam ba war ko fépp tooy ba mu def fi sëriñ bi toog siiw na wa kullu ma aradtuhu min kan faal wallahu alam sëriñ Tuubaa xaada lahu allahu maxtaar nee na góor guy takk tubay loo jiitoo daaru xasan njaay ci yàlla subhanahu wa taala coobare la waaye dug farlu siiw na am na may yoo xam ni ci yàlla lay jóge te du loon takk ci ak farlu wala jëf sëriñ bi dañuy xamoon ni li muy def ci lu baax lépp sëriñ daaru xasan radiallahu taala anhu mi ngi koy def waaye daa am lu ko yàlla may subhanahu wa loo xam ni tax na kenn mënu koo raw ci yàlla subhanahu wa يجدني عند مليك مقتدر كل ولي للجنان يبتدر كوني خادم الرسول والكتاب فضل من الوهاب لا من اكتساب سرين بدانا نو ليرال ليك ليك اي من mbindam ni ci tagge yonente صلى الله تعالى عليه وسلم sallam la rawe طريق القوم وقت امتداهه ولي قد خلى الحاجات بالروض والبسط كوني حبلي كون خلمي بشارة المقدم واكتب به تقدمي بلا أسن أو ألم والله أعلم Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtarloo mas naa jox sëriñ Mouhamadou Moustapha radiallahu taala xanu ab junni mu waxtaan ak sëriñ Mbay Jaxate radiallahu taala xanu mu ni ko delloo ko ko te jaay ko ko bi mu ñëwate sëriñ bi ne ko xanaa danga giseeg Babacar bul defati dara te diisoo woo moom siiw na am na xel yoo xam ni wilaaya la wallahu aalam am na ku mas a gént adduna tukki ba ñu ko waxee Sëriñ Tuuba xaada la wala Maxtaar mu ne ndaxam moos am na gént monsieur ba mi yàlla naroon a wàcce bu ko wàcce woon bu adduna tukkewul itam fii fépp dana fi tukkee waaye maa ñaan yàlla subhanahu wa taala mu teg ko sama jëmm te jaam ñi am jàmm siiw na sëriñ bi waral ñépp bëgg ko ba mu gënal leen seen bopp mënees na koo xame ci lii ba tey sellal gi mu sellal itam baraw ñépp ci ak sellal lii moo koy xamle na ndax naru toon a wax lenn ci loolu laaj gi moo waral wax gi yu mel nii nag ci la dëkkoon bi muy nekk adduna ñu di ko gis ba tey lu mën noonu mi ngi koy def te moo ko wax walla alam sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaar loo jafe mbir maa ngi koy xamee ci bëri gu muy bëri fi man ndax saa boroom lu jafe rek la jox wér na wala yesooxu lil xasil mujril xadaa wal xadari walaahu alam sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaar mas naa woo sëriñ Muusa Halima radiallahu taala anhu mu ci biir kees yi bi ñëw ba agsi fi mu nekk jàpp ci ay loxoom jiitu mu topp ci ginnaawam wér na nafa li xayri dalal ba bayit ba sëriñ bi moom bu julliwul day janoog lépp lu am xelam nekk waaye bu nekkee ci ak julli du gis lu dul lu jëm ci boroomam wallahu aalam sëriñ bu xaadalawoo laaw maxtaalowoo li mu fi bàyyi ci doom yu góor kenn ku nekk am na lu mat fanweeri junni ci li mu fi bàyyi motoon nañu fukk ak ñaar ñi mu fi bàyyi ci doom yu jigéen kenn ku nekk am na fukki junni ak juróom motoon nañu fukk ak ñeent am na itam juróomi million yu mu fi bàyyi amoon lu mu ci nasiroon ñoom ñëpp maase teg ca ñaari million booba barigob gerte mi ngi jar juróomi dërëm li mu fi bàyyi ci xaalisum ngal ak wurus wu ñu tëggul mat na juróom ñaari barigo ak juróom ñett fukki kilo ak ñett li mu bàyyi ci wurusu ngalam wu ñuy tëgg mat na juróom ñaari ak juróom ñaar bàyyi ci lami xaalis man na juróom ñetti ak fanweeri kilo ak juróom ñett li ci wurusu ndiisal xëy na du ñàkk ñu ko xam mat na junni ngoora wala goora ngoora moom it du ñàkk ñu ko xam bu baax mën na junni ngoora ak téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar li mu fi bàyyi ci ay jàllaabi mat na juróom benn fukk ak juróom ñett li mu fi bàyyi ci ay mbàjji ak matlo ba ñu ko peesee mën na fukki barigo ak juróom benn ak juróom ñaar fukki kilo ak juróom ñeent fi bàyyi ci góor mën na juróom ñaari ak fanweeri kilo ak juróom ñaar li mu fi bàyyi ci ay piis yu ñu ñëwul mën na juróom fukki barigo ak juróom ak ñaar fukki kilo ak juróom ñeent li mu fa bàyyi ci ay ndab mat na ñaar fukki barigo ak ñeent fukki kilo ak juróom li mu fa bàyyi ci ay satala mat na juróomi barigo ak juróom kilo li mu fi bàyyi ci koppi xudar mat na barigo ak juróom ñeen fukki kilo ak juróom li fi bàyyi ci sondeel man na fukki barigo ak ñeent ak juróom fukki kilo ak ñett li fi bàyyi ci ay baraada mat na ñeenti barigo ak juróom ñeen fukki kilo ak juróom ñett li mu fi bàyyi ci ay kafteer man na ñeen fukki kilo ak ñaar li mu fi bàyyi ci ay kaas man na ñaari barigo ak juróom fukki kilo ak juróom limu fi bàyyi ci ay kuddi weñ yu ñuy tàngale kafe man na barigo ak fanweeri kilo limu mu fi bàyyi ci saatu yu ñuy sote xalima mat na ñaar fukki kilo ak ñaar li mu fi bàyyi ci pot yu def warga mat na ñaari barigo ak benn kilo li mu fi bàyyi ci pot yu ñuy diwoo mel ni faroote man na ñaari barigo ak juróomi kilo li mu fi bàyyi ci kafe man na ñaar fukki barigo ak juróom ñeent ak fanweeri kilo ak ñeent limu fi bàyyi ci warga man na juróom fukki barigo ak ñett ak juróom ñett fukki kilo ak ñett limu fi bàyyi ci suukar man na ñeen fukki barigo ak ñaar ak juróom ñeen fukki kilo ak juróom li mu fi bàyyi ci cuuraay mën na fukki barigo ak ñeent ak ñaar fukki kilo ak ñeent li mu fi bàyyi ci ceeb mën na juróom benn fukki barigo ak ñaar ak juróom ñeent fukki kilo ak juróom wér na lool lii moo nekkoon ci këru njëreem ga ci li ñu bind Sëriñ Basiru radiallahu taala anhu nee na da daan joxe ba mujj joxe gi nar koo yàqal ak jaamoom mu bàyyi ko loolu moo waral yii yëpp bari fa lool batay man li mi ngi may fàttali bayit wi wasalati dunya liyal masaliha wa bil masalihi uaynu saliha sëriñ bi alquran ak téré yi la jàppe won lu mom waye yi ci des daana ci doxe no xamni ni ko gis xamni jappé wu ko lu mom wallahu alam sëriñ tuba xaada lahu law maxtaarloo nee na suuf sépp sunu borom ko mom waye amna fu mbay gëna nango nangoo xasiid ak tufatul awaax ku ko jàng danañ la jéggal bàkkaaru juróom ñaar fukki junni at ku koy diglu bindal nañ ko tuyaabay juróom ñaar fukki junni at siiw na li tax ma di ko indiwaat daa ami wuute ci waxin wi waaye li nuy xam moo di mën naa far bàkkaar rek su ko defee nu xam ne sunu boroom itam bu lay faral bàkkaar moo xam na mu koy fare nanuy moytu bàkkaar te bu nu juumee ba def ko nuy jàng xasida gi ak xasida yépp ndax tuub dañu ko war a taqoo wa tuubu ila llahi jamian ayuha almuminuuna laalakum tuflihun wallahu alam sëriñ tuuba xaada lahoo law maxtaar lahoo nee na xaajoy fajoona ci di dox jëm ci mbind ba mu yàgg xelam dem ci aw bayit ci sama xasida mu jàng ko bayit wa dem xaras del siwaat faj xaajoom siiw na loolu dañuy xamal bu baax ni xasiida yépp ña nga ca xaras di nu xamal ba bindi sëriñ bi wallahu alam sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaaloo nee na adduna façon naaru góor la woo xam ni saa soo xëyee di ko yafal te doo ko war mukk siiw na wamal xayaatu dunya illa mataaul gurur wallahu alam am na ku mas a bindal sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaaloo ab kaamil bëgg bind ca kaw xul ma asalukum alayhi min ajrin far bàyyi ko ba mu joxee bay dem sëriñ bi jox ko loxo ni ko xul ma asalukum alayhi min ajrin siiw na na nañuy xam ni wilaaya moo di jox jokkoo borom bi te borom bi waxtu wu nekk muy xam xamle ni li ñuy xalaat ak lu ñuy def lépp lay xam ki jëm ci moom tey sax ci moom itam noonu lu bari da koy xam ngir melooy ki mu sax da cee bokk xam lépp inna allaha bi kulli shay'in alim wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaada lahu allahu maxtaar lahu nee na ñett bàyyiwuma ko kenn sama xasida yi sama doom yi sama dëkk bi siiw na xëy na moo leen di sàmm la bëgg a wax ndax yëg na nun ñi fi dëkk bu wér ni musiba yi dañu koy dégg rekk ci réew yi waaye duñu leen gis loolu day na tegtal sekk ak li mu wax ca wax ak li mu wax tuuba arasa allahu taala min kulli makruhin wa maqoofin ba tey nee na xasida yi ay jëmm lañu bate tey nee na dañuy jeñ di xëcc ba tey nee na dañuy jaamu yàlla subhanahu wa taala ndegam ñooy wattu murid yi murid yi duñu leen mën a saytu li nu war ci ñoom moo di wormaal leen bu wér te xam ni ñooy li wuutu Sëriñ Tuuba xaada lahu lahu maxtaara lahu ci def ak dindi ni mu ko leerale ci ay waxam ak bindam lu bari ba tey doomam yi li leen yàlla subhanahu wa defal kenn du ko sikk ku dul ko xamul dara bokk na ca fu ñu toog ci àdduna du ñu yëg kenn ku leen féete kaw ci ragal yàlla subhanahu wa te képp koo gën a ragal yàlla subhanahu wa taala yaa ko gën fa moom te yaa war dox digganteem ak yàlla subhanahu wa taala wallahu ala ma wakilin wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaada lawo laaw maxtaar lowoo nee na bu ngeen bëggatee jàng alxuraan wala xasida wala gépp ñaan gu baax na ngeen jiital xasida ak astaghfirullah bihi siiw na mën na fukki way ak ñaar bari na lool lu may dégg ñu koy wax ci ay jagleem waaye li ko sëriñ bi jiital doy na tegtal wallahu alam mën nañu jàng xasida ak Hamad Sulayma ba agsi ci bayit wi mir'atu azwajiha abdanuhunna naam isnuuru abdaniha yusri sirajaati sëriñ Mbàkke Maane radiallahu taala anhu yuuxu mel ni kuy wax ak bëgg gisam jigéen ñooñu sëriñ bi wax ko mu jël ak satala gu nekkoon foofu te topp ko am na fu ñu yegg sëriñ bi delloo bunt ba bàyyi ko fa mu tàmbalee gis ba mel ni ku tàggoo xelam ba mu ximilikoo la gis sëriñ bi di ko sotti satala gi mu yoroon moom siiw na loolu mooy gàttal gi rafaani ilal jinaani bika wala ilaha illa laahu sëriñ bi mel na ni daana wan ñenn ci murid yi yenn yu fàddu mel ni lii wala am malaaka wala ku faatu woon wallahu alam wax nañu ni sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaaloo bi muy doore ñëw ci yéen jolof daanañ ko dégg muy jàng xasida ca kaw siiw na ñu ñëw ci njàngalem Sëriñ Tuubaa mu neex mu te sell mi ci ñaar téeméer bi ak fukk ak juróom benn Sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaar lawoo mas nay waxtaan ci Seydina Muusa alayhi salaam ba mu yàgg Sëriñ Muudu Jaw Paxa radiallahu taala ni ko Muusa baax na lool waaye dañoo bëgg nga nettalinu sa liggéey bi ak sa jaar jaar ndax moonu amal njariñ nun sëriñ mi ni ko ko baax la ci ulul asmi la bokk waaye la mu def jàpp naa ni mënoon naa gën a sakkan ndax yat wa mu dóoroon ca géej ga ba mu xar bu ko dóoroon ca xolu xaw na mu tuub siiw na Sëriñ Tuubaa xaadalaho la maxtaar lahoo bi muy bëgg a jóge jolof di ñëw njaareem am na naar bu ko wax ni dama màggat te yaa ngi dem mën naa am dooma fi fekkaat ma bëgg nga jox ma ak ñaan bu ma faatoo ñu boole ko ak man sëriñ bi ni ko jëru ko man yàlla subhanahu wa taala may na ma sama taalibe yépp bu ñu faatoo ndoowoon ci senn saa kenn ku nekk mën naa laa fekk ci sa bàmmeel nangu la ku dégg nettali bii li ma ci teg nanga ko ci teg képp ku dugg ci sa bàmmeel te fekkoo ma fa la tee nga fekk ma fa yaa ko def mbaa yaa ko wax siiw na yaa ayyuhal lazina amanu أتيعوا الله وأتيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم bi sëriñ tuuba xaada la la maxtaar la sancee daru rahman di ci tuuba fa la daan dalal gan gu doon borom xam-xam yabal fa sëriñ mbàkki bu sa radiallahu taala anu wala ku ko nuru siiw na am na bis ñuy jàng xasida sëriñ tuuba xaada la la maxtaar ni dama ni ana ibrahima faal buuba ba mu ñëwee mu ne ko xam nga lu tax boo newul ci njàng mi nu xam ko sama boroom nee na sama xasiide rek ñoo tax mu bind la siiw na wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun doona makatibil ibadatu maa tagarrubi kullal masaya jamaa wallahu ahlam sëriñ mahib radiallahu taala anu nee na bu ñu daan jàng ba wax lu dul noona ci waxin wi Serigne Touba xaadalahu law maxtaar lahu day woo Serigne Mouhamadou Lamine Diop radiallahu taala bu ñëwee ba ñu wax way wa mu jàng ko na mu ware Serigne bi ni dégg ngeen ko noonu la siiw na booba nee na mënaguñu maxaarijul uruf wallahu alam cheikh ibrahima faal radiallahu taala mas naa jënd ab oto ci fukki junni ak ñaar yónnee ko Serigne Touba xaadalahu law maxtaar lahu Serigne bi wax ni nañ ko yet muhammadul mustafa radiallahu taala anhu ba mu agsee ca moom mu laaj ndaw la lu muy jar mu wax ko ko mu jël loola jox ko ndaw la ni ko dellool oto bi te wax ko ni ko fukki junni yi ak ñaar maa ko tuube ndax dara wëtta jóge ci loxoom nu di ko delloo ba mu ñëwee ba wax loolee sëriñ tuuba xaadalaho laaw maxtaar loxo mu ni ko muhammadu mustafa jaaxalu la ñett yoon la ko wax mu ni ko jaaxalu ma ngir yow sëriñ bi ni ndaxam nu mu defoon nu dul nii rekk su ngeen ma noppee gis lu fi baax Ibra Faal dana ko yóbbu siiw na ñu ñëw ci njàngalem sëriñ Tuubaa mu sell mu neex mi ci ñaar téeméer bi ak ñaar fukk ak ñaar sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaloo nee na lii ngeen may jox ma di ko téye bu leen jàpp ni dama ñeme bor dama amuk pay siiw na am na bi Serigne Touba xaada lawoo law maxtaa lawoo yéex a julli si ba am ku nara jiite Serigne bi ñëw ni ko du caa génni danga matul imaam waaye man ma mënta doon maamum siiw na kon loolu ci ay jagleem la ginnaaw géej gi xëy na wala bi mu nekkee njareem wala alam am na ñu doon wax mel ni ñuy jëw ñu dikkul ci Serigne Touba xaada lawoo law maxtaara lawoo Serigne bi ni leen kaay leen ndaxam ñooñu ngeen di wax seenug yaafuus bawu leen fa yéen ñi ñëwit seen ngóor a leen mbir mi moo di ki ñëw ak ki ñëw te yegg seegul ak ki ñu woowut ku ñëw ñëw na ku yegg seegul loo ci wax jëw ko kañ woowut woo weesu ko siiw na yal nanu soli jëw lool ci barkeb borom Tuuba xaada laxoo la maxtaar nan yàlla subhanahu wa taala réyal na ko lool akub yonenteem salallahu taala alayhi wa sallam sëriñ bi itam waxtu nekk nuy gis ci ay mbindam buy tere moom lay jiital ak fen wallahu alam sëriñ tuuba xaadalawoo laaw maxtaarlawoo nee na dama dikk ci ñagub wali wi ñag mooy lu ñu wërale sëriñ bi nee na dama dikk ci ñagub wali wi radiallahu taala anhum di ko wër ba gis ni wali wu dugg am na ci bunt boo jaare cheikh abdul xaadir jaylaani radiallahu taala ci buntu lu la jaare man may tagg yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama di wër ñag bi ba mujj mu génne loxoom ni ma cas dugal ci biir ñu ni kii kan la mu ni leen yàlla dana bind lu ngeen xamul te mooy dana am koo xam ni fa muy jaare du doon buntu ba ñëpp di jaare sama borom ubbil ma bunt boo xam ni bañ ma ko ubbilee ba ma jàll da koo ubaat te dootu ko ubbil kenn te mosu koo ubbil kenn mel na ni lii may bëgg a bind ci loolu la aju bu dul wenn waxtaan mi ngi nii sëriñ tuba xaada lahu law maxtaar lahu nee na saa boroom dani ma sëq ni ma càpp ca digg wali radiallahu taala anu na fa nekkoon ci wali yu xarab ni man haasaa ña fa nekkoon ci wàllu yu wolof ni kii kan la ña fa nekkoon ci wàllu yu pël ni ku dim mu ki dim wooni saa boroom teg ma ci bërëb boo xam ni dara duma ump ci ñoom te ñoom xamul luñ ma dara siiw na mel na ni yii mu wax yépp bind na ko xoolal bayit yii seetlu ko bu baax tawaytu tariixal xaw mi waqatam tidaahi ba bayit wa jeex ak waxaalani lahu bi anwaahil badi ak wali xaada sirran gaaba an xayril muxi ak yajiduni anda malikin muqtadir kullu waliyin lil jinaani yabtadir ak illa yaqaada allahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini sëriñ tuuba xaada lahu law maxtaara lahu bi mu jugee ci géeg gi ba ñëw mbàkke kajoor daa wax sëriñ mbàkke kajoor radiallahu taala anu dama jugee ci ligge ci liggéey bi moo tax ma di la siyaar si ndax fu ma masaa bëgg a taxaw nga ñaax ma ñaari junni xalima yi Mad Lamin Gay radiyallahu taala anu moo ma ko yónnee woon keroog ba ñuy fanaan si yoruma genn xalima li ma doon liggéey lépp ci laa leen liggéey duma leen dénk kuy mer walla muy fàtte wala muy fayantoo wala muy nelaw walla muy xuloo wala muy tooñ te yooyu yépp nekkuñu ci yow ndax xalima yi genn gu ci nekk lam def ak kamu ko defal danañu teew ñu ne fi ñu nekk fi walla alam daldi koy jox xalima ya ak lu mat fukki defukaayu daa ak ñaar akub kaamil ba mu mujj bind ak xasiida yu bari lu mat juróom benn gaal ni ko saab sëy caa ngi nii bu ni mel mësta am ci ab tukki dégg nga siiw na